ah Pape Diouf moom tey moom franchement tey dañu kontaan trop parce que euh, quand même bu man du ñu nee guleet ci Pape Diouf ah c'est pas la première fois bu def li yàgg na ko def def na ko fii def na ko extérieur donc ñun spectacle bi ñu def nii spectacle boo xam dama sedd suñu xol te performance artistique bi nice na tey Euh, Ngone Ndour Ngone Ndour lan mooy ambition am tey ak Pape Diouf à partir d'aujourd'hui jëm à l'avenir Sénégal mais ñun sunu ah, sunu ambition ak Pape Diouf Pape Diouf Cissé vous savez que c'est le plus grand artiste de euh, de Prince Art donc ñun sunu ambition moom mooy que ne Pape nekk artiste boo xam ne ne que ne fépp si àdduna dañ ko ràññee ràññee nañ ko gaa mais ba tey jii ñun doyluwuñu parce que bu nu sañoon dañ koy gën a ràññee fépp fu mu nekk te ci li ci yoon boobu la ñu nekk ci yoon boobu la ndax ndax loolu ndax loolu tey Prince Art mi ngi ciy dox loolu la dox bu xoolal lii donc ñun yàgg nañ def ay spectacle Pape Diouf mu mel nii tey nag moom c'est un autre projet qui est né c'est le enjoy qui est né et on est très très content du résultat. merci beaucoup merci beaucoup Ngoré ci disponibilité bi jërëjëf merci beaucoup. salaamaaleykum. maaleykum salaam. naa ko ñu a xam rek tey sa teewaay ci bis lan moo ko waral xam nañ ni calendrier yi chargé na moo tax tey jii nga jaay say nelaw ñëw wuy si Pape Diouf. c'est normal Pape Diouf artiste la bu jar déplacement et puis produit aussi Prince Art la donc rafet na tey pour ñëpp teew